bi ci jàkk ji jàkk ji parce que lieu la boo xam ni nit ñi dañ fiy faral di dajale di dajoo waxtu bu ne te amaana am na ñoo xam bëri nañ kerte boo leen nuyoo duñ la mënuñu téye seen loxo donc bu dee dañoo nuyoo pare raxasu ak seen eau de ak seen kii wala ñu jël seen produit antiseptique raxas seen loxo yi donc loolu dina tax ñu mën a aaru bu baax ci jàngoro ji euh, dina tax ñu mën a aaru bu baax ci jàngoro ji vraiment loolu taxoon mu ne nañ ñëw jébbal ba pare sàkku si ñoom ñaan ndax mbir la boo xam ne yàlla moo ko fi wàccee donc buñ ko ñaanee ndax moo ne ñaan leen ma may leen bu buñ ko ñaanee ginnaaw bu ñu defee li ñu war a def yëpp mooy fagaru buñ ko ñaanee yàlla mun na ci def sutura te moom yaakaar ñaan bi yaakaaruñ ko fenn sudul ci kilifa diine yi muy suñu imaam yi suñu ustaas yi ak suñu xalifa yi ndax am nañ yaakaar ci ñoom donc ñu ne woon vraiment nañ ñëw seet si ko bu ko defee jébbal ko li ko président Abdoulaye Dièye jox sàkku ñaan si ñoom tamit donc alaaji loolu moo doon tànk yi ñu fi indi tey. ñu ngi sant bu baax di am mbégte lool di recevoir sunu gaay yu baax yi muy sunu ay mag yu baax di jatam yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal Cheikh Abdoulaye Dièye euh, muy nit ku baax boo xam ni mi ngi ci gox bi di def fii yu am solo te nit. moom ki gën a am njëriñ ci lislaam mooy ki gën a amal njëriñ nit ñi waaw xayru naasi anfahum li naas kon lii dañ ci dañ koy rafetlu lool surtout ci jamono bii jamono bii dañu nekk ci jamonoy xare xare bi mooy lan dafa am benn feebar boo xam ni suñ borom wàcce na ko tey ñu daan ko dégg bu sori ba léegi nag ñu koy dégg ci sunu biir réew mu am ñu ñu mu dal ci sunuy mbokk ñu leen di ñaanal yàlla na yàlla saafara waaye ñu it ku nekk war a fegu ndax ab jullit moom ah dafa war a saa su nekk di fegu ñu xam ni nag mbir mi lu am la waaw mbir mi lu am la am na ñoo xam ba léegi nag dañ koy weddi mais mbir mi dafa am moo tax gaa yu baax yi lii ñu def nii moom la saaba yi daan def waaw jamono bu guerre amee dafa am ñuy dem ci front bi taxaw jiitu vraiment pour di aar jullit ñi waaye ñii mbokk yi ci loolu lañ taxaw kon nañ ci góorgóorlu bu baax euh, feebar bi nag ñu xam ni amul kenn ku muy bàyyi feebar la boo xam ni soldaaru yàlla la du fi bàyyi kenn yàlla yërmaam ndem gi daf cee tëbb ñëpp waaw jullit ak yéeféer fii ci àdduna kon du bàyyi kenn kon ñun jullit ñi nañu fegu yon salaa salam dafa wax ni at-tuhuru satrul iman set moy gën walu ngëm kon ku setul kon danaka gëmoo kon nañu am set te it comme niko ko waxe won sank bo boo japp japp danaka yalla digal nañu ko juromi yon ci bis bi lol daf ñuy wonni rek diine l'islam diine set la te it mbokk ku nek na xamni sahaba yi ñoñu gënon fop fop fop te amna ci ño xamni ni bu melni mo len leen muy pes ku ci melni ni abu ubayda moom lañ waxon sank abu ubaida bobu bokkoon na ci fukki nit yi nga xamni ne sallallahu alayhi wasallam waxon waxoon na dañuy dem aljanna àjjana sallallahu alayhi wasallam waxon na ni aboubacar fil janna ali fil janna omar fil janna usman fil janna mu zubair fil janna talha fil janna saïd ibn zayd fil janna abdurrahman ibn auf fil janna sa'd ibn abi waqas fil janna mu abu ubaydata fil janna kon nañu xam ni nag sëgëm ñooñu la fi feeb la feebaru épidémie yóbbu woon kon mënul bàyyi keneen kon nañu am toujours mesure d'hygiène yi nga xam ni médecins yi moom la ñu wax ba mbokk yi tey indi fi yii nga xam ni moom lañu ñu war a utiliser ñu indi ko ci jàkka ji ba pare di ko def ci koñ bi loolu lu am solo la lii ku ko rafetluwul rek xamoo lu rafet vraiment dañ koy rafetlu bu baax kon tey jii yii am nii bu ñu toppoon loolu kon lii du am waxoon naa ko ci début ba. treize étudiants yi nga xam ne ñoo nekkoon fële am ñu naan président daf leen war a jëli ma leen li président def noonu la parce que yonent bi loolu la digle malheureusement nag tey jii dafa am ay nit ñu bëri ñoo xam ni dafa am leneen luy nekk seen ginnaaw dañu wax ngir yàlla bu ñuy wax nañu wax ngir yàlla président li mu def nii mooy yoon parce que jàmm la ñu bëggal lu baax la ñu bëggal mais après bu feebar bi kii bu soobee yàlla ñu delluwaat ci sunu kii incha allah. xeex bi ñuy wax ndax set mooy lépp mooy lépp mooy lépp surtout maa ñun jigéen ñi nga xamante ni léeg-léeg sax ñu koy lu jënd eau de daf ñuy tënk ndax xale yi suñu génnee fooy su ñu ñëwee war ñoo raxasee seeni loxo def eau de si ci kër yi ba mu set bicc ñu ngi gërëm Ablaye Dieye ak yéen membre yi am ak moom ndax it xeexam mu ngi ci lépp ci pauvreté beeg solidarité beeg yëpp lii moo ci mujj ni koy ñaanal bu baax yàlla dooleel ko yéen ñi ànd ak moom it yàlla gën leen a dooleel ci barke Muhammad ñu koy ñaanal bu baax a baax